sant ak di gërëm ONG APIJ comme ni ma ko waxee woon sànq peccum liir bu neexee yaay jaa jàpp ci mbagg yi yàlla dimbali nañu ONG ONG APIJ assisté ñu di ñu dimbali ba ñu mën a nekkandoo ba mën a gisee ba mën a xamante ba mën a euh, euh, sos association bu ñuy wax jóg jàppale jirim ONG APIJ ne ko ne boobu mu ñu ne nag doon na ndimbal bu rëy si ñun yaayu njirim yi parce que doon na ndimbal bo xam dimbali nañu dimbali suñu njabot te nday ku dimbali domam rek dimbali nga ko té loolu lañu yalla dimbalé ci si ONG apiche bañu jaaré fa mëna def juk jappalé jirim ba tax mu jural ñu lim ñu jural yépp kon alhamdulilahi rabbil alamin dañu gis né euh, mbitim réew rek réewu julli ci rek ñoñu nangol parénel suñu orphelin lu mu bon bon bon ben yon par at wala ñaari yon ñu mëna am astour buñu leen mëna may xool nañ ne war nañoo mën ñu ñun itam dimbali suñu bopp ndax aussi di jot rek te dañuy wax ne loxo bi joxe gën loxo bi nangu ñu ngi nangu war nañu góorgóorlu ñu nit booloo ba li ñuy nangu it war a mën a am lu ñu jural ñu jéemal dara suñu bopp. Euh, association boo xam ne day liggéey ci wàllu social man nag maa ngi euh, kontaan ci daje bi daje bi nag li mu doon mooy nañ fa dajale ay jirim yu ñuy fay seen i solde jirim la ñuy fay. jirim yi nag seen lim mu ngi toll ci mille seize jirim yu ñu fay seeni bi kër gi ñu ñëw itam bu ngeen ñëwee da ngeen fi gis ne ñu ngi fi def ay jirim yoo xam ne mën nañu trois cent jirim ñu ngi jàng alquran arab ak français moom lañ fiy jàng këru yarukaay la jàkka ji mooy jàkka ji nga xam ne mooy fi jirim yi di jullee ay góor ki jigéen deux cent góor la ak cent jigéen euh, mbootaay gi nag liggéeyam comme ni ma ko waxee li ci gën a màcc euh, gën ci am solo mooy jirim jirim yi am nañu yeneen activités yi ñuy def ñu ngi dimbale famille yi nga xam dañu néew doole ñoom itam di leen fay soldu comme ni ñuy fayee jirim yi nii ñu ngi dimbale itam ñi nga xam ne ay handicap lañu di leen jox dara comme ni ñu ko joxe jirim yi di dimbalee itam borom kër yi nga xam dañu néew doole seen loxo jotul seen ginnaaw ñoom it noonu lañ leen di joxee ndimbali leen di jox jirim yi dañ ko tas dañuy jël yenn ci Casamance jël lii ci Tamba jël lii ci Kaolack jël lii ci yeneen yeneen raison yi li ci gën a bëri nag Dakar la dëkk waaye fàttewuñu benn région ci dëkk bi wala benn département amuñu xet yi ak seen nag doomu réew mi rek la soxla yoo xam ne papam dafa faatu jirim ñun nuñ ko jàppe ci lislaam mooy kii papam faatu bu xasee nekk sénégalais juddoo bakkan feeg muy am fukki at ak juróom këyit yi mu am man na ko déposé ci ñun incha allah détail yu këyit yi nag mënu ci dugg ndax day gudd waaye am na kayit yi ñuy laaj bu ko jëriñ bi indee xamuñu ban waa solo bokk xamuñu ban dëkk la bokk xamuñu ban tariqa la bokk dañuy jàpp ne sénégalais la association bi sénégalais yi lay liggéeyal kon amuñu xej yi ak seen ci kenn ñu ngi accueillir ñëpp ku am lu demee noonu te ñaanaluñ ko kenn yàlla waaye ku am lu demee noonu indi lu ñu ko incha allah dinañ ci taxaw sunu kem